manto yi ñu ngi koy daal di euh, jànkonteel fii ci Sénégal ak tamit yeneen i ponk yu soxal actualité bi kon Ansoumana Dione ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm. Ndeye kumba maa ngi lay euh, euh, maa ngi lay fay. Mm. di am mbégte dellusiwaat fii ci émission donc toute la ville pal parle. Mm. di rafetlu invitation bi. parce que yow sa diggante ak ñu amee feebul xel. Mm-hmm. du tey dafa yàgg. donc euh, mbirum mu ñu amee feebar xel dafa mos a soxal euh, sunu kuréel gi di ASSAMM euh, ay yëngu-yëngoom dafa mos mas a intéressé moo tax ñun foo ñu woo donc dañ ñëw avec beaucoup de plaisir may nuyu nag ñiy déglu. Mhm. di nuyu kilifa yi vraiment di ñaan yàlla yàlla defal ñu dem ci émission bi. mi ngi noonu ñu lay remercier bu baax ci sa disponibilité tey jii ma lay laaj comment se porte l'ASSAMM sa association bi est-ce que mi ngi dox wala doxul. waaw ASSAMM. Mhm. fi nekkoon la nekk ba tey. maanaam détermination mhm. engagement aux côtés des malades mentaux mhm. ndaxte euh, tant que euh, ñi amee feebaru xel euh, seeni condition mi ngi metti yaa Ansoumana Dione ak ñi mu àndal danañ fi taxaw mhm. xeex bu yàgg la tey nag am na changement bu bees bu ci am mooy que ne yàlla dogal na pour la première fois ñu am un ministre de la santé et de l'action sociale en la personne de Abdoulaye Diouf Euh, bu ñu nangoo déglu. Mhm. Euh, bu ñu nangoo accompagner bu ñu nangoo comprendre bu ñu ubbil ay buntam wax dëgg yàlla euh, donte nag y' a beaucoup de à waaye loolu dafa nekk loo xam ni si si ñun tuutiwul. Mhm. nekk lu nekk na en tout cas jéegu bu mag a mag a mag bo boole si nekk ak li nga xam ni moom lañ si jotee def. Mhm. mooy tey jii Sénégal yëpp xam nañ ne ñu am feebaru xel seen droit dañ ko war a dañ ci war a taxaw. Euh, seen ak ak seen ak ak dañ ci war taxaw amul mbedd booy taxawaalu amul dëkk booy dem ci réew mi euh, te gisoo ñoo ñu amee feebaru xel waaye nag euh, lu ñu wax la ñun duñu mës a bàyyi duñu mës a tay mhm. mais mais mais su ma la waxee comment se porte l'ASAM ASAM moom dafa mel ni Ansoumana Dione rek moo fa nekk waaw est-ce que ASAM am na keneen ku dul Ansoumana xam nga nit ñi tey jii Macky Sall mooy président bu Sénégal. waaw euh, moom mooy représenté mooy yor signature bu Sénégal. Mhm. Euh, buy dem Nations Unies euh, duñ ne an Sénégal. Mhm. moom Macky Sall la ñuy wax parce que moom la Sénégalay fal. Mhm. sunu kuréel gii di Assam texte yi ñoo ne Ansoumana jon mooy wax mooy dem. ci mhm. tur association bi mhm. ASSAMM c'est une équipe mhm. ki ma doon woo sànq ni yaa ngi may wax ne kan ngay woo daf may rappeler sànq ba léegi euh, donc euh, c'est un membre de l'association euh, moom laa doon jéem a rappeler noonu fàtte naa ne heure bi jot na donc c'est toute une équipe nag très dynamique très engagée bu nekk sama ginnaaw je ne suis pas seul man la ñuy gis nag tout le temps waaye texte yi ñoo wax loolu c'est le statut de l'ASSAMM et son règlement intérieur moo ma jox man en su ma joon may wax ci turu association bi. Mm-hmm. may may représenter l'association donc loolu euh, nekk loo xam te ni. Mm-hmm. en su gis euh, assam bu doon en su ma kese la assam kenn que association pour ñu reconnaître ko il faut. au minimum Exactement. trois personnes mais mais Assam Ansoumana yéen nga nekk sur le terrain di kaas dañu gis ni daal depuis un certain temps Assam gisatuñ ko ci terrain bi carrément lan moo ko waral. loo mel ni da ngeen retiré wu daal mel ni xeex bi daal léegi dangeen dangeen da ngeen changé tactique lu xew. Euh, xam nga ah. xam nga mbedd mi. damay koy wax tout le temps. Euh, on ne développe pas la on on on, on mm-hmm. par la rue. Mm-hmm. Euh, ku jóg rek dem ci mbedd mi. ñun mm-hmm. dañu bëgg a jëlee malades yi ci mbedd mi. kon ñun bu ñu bëggee yokk ci mbedd mi dafay poser problème. Euh, tey wax nañ ko le combat c'est en interne. Mm-hmm. li gars yi doon dégg ci ci ci biti mm-hmm. léegi ci biir ministère de la santé la ci biir système bi la mm-hmm. euh, donc euh, le combat c'est en interne c'est au sein euh, fi nga xam ne foofu la ñuy décider xeex bi tey foofu la te te bu fekkante ne doon nañu dégg lañ fay wax ak lañ fay def sénégalais yi danañu danañu yéemu ndaxte le ministre Abdoulaye Diouf Sarr xam na ko mayuma ko jàmm nag mayuma ko jàmm Euh, guddi ak bëccëg suba ak ngoon maa ngi wax ak moom si ñu am feeb ñu am feebru xel parfois sax euh, nit ñi dañ dem ba def ni sax man ak moom ay noon lañu. Mhm. fekk ne demewut noonu combat bi moo ko laaj. Euh, parce que moom suma xarit la suma mag la suma kilifa la waaye nag ak ak yelleef ñu amee feebru xel bu taxawee dañuy jël kilifteef gi dañuy jël mag gi teg ko de côté. jël li nga xam ne mooy li nga xam ne moo ñu war ñu taxawee ko loolu nag euh, nekk na loo xam te ni may nañu ay avancées yoo xam te ni tey jii euh, jàpp naa ne fekk ay fan yu néew Sénégalais yi ñu gis ay changements yoo xam te ni te dara warul ko lu dul loolu ñu xeex en interne. Hmm. la tax léegi euh, démb démb rek. Hmm. bakk dem maa ngi wax au téléphone benn kilifa bu mag au ministère la santé. mais ki déglu daf ma ne mais yow kan ngay waxal nii ma ne ko c'est un bu nekk au ministère de la hmm. parce que ñoom ñoo war a taxaw. pour que ak ak yelleef ñu am feebu xel en tout cas koo. Euh, moo tax léegi ngeen bàyyi seen conférence de presse yi seen sitting yi ngeen doon amal euh, xam yëngu-yëngal yi ngeen bàyyi ko. loolu. Euh, da ngeen ko bàyyi wala lan mën nañu ne bàyyi nañ ko bàyyi ko. Mhm. parce que bu laajee bu laajee su laajee ñu wàcc si mbedd mi danañ wàcc si mbedd mi mais su fekkente ne ki la wax dëglu mu ngi lay déglu. Mhm. wax dëgg yàlla. est-ce que tamit en ce moment la rek. Euh, corruption. waaw mm, corruption. yow ñi ngay xeexal ñi ngi ci mbedd mi nga jékki-jékki yow da nga daa nekk ci mbedd mi tout le temps nekk sur le terrain tout le temps di yëngu di yëngal nga jékki-jékki rek léegi daa say communiqué ngay bind toog ministère de la santé est-ce que tamit euh, duñ na ah na dañu ko corrompre. xam nga xam nga xam nga communiqué yi may bind. Mhm. ku ko liir xam na fii corruption amu fa. Mm. ndaxte bu euh, bakki démb ku nekk liir nu euh, les départementaux expriment leur colère au ministre Abdoulaye Diouf Sarr. Mmh. c'est-à-dire euh, ñun on n'a jamais été tendre avec le, ni le président Macky Sall ni avec euh, le, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr par rapport à ces malades mentaux. Mhm. bind nañ fi bakki démb ne Macky Sall mooy sunu koxonaa ñun les malades mentaux. Mhm. bind nañu ne Macky Sall est une entrave aux droits des malades mentaux. Mhm. boobu mi ñu fekk bii ministère de la santé parfois nag nit ñi mais en tout nu mu demee ne ma ne non. Assam c'est pas Ansoumana Ansoumana c'est pas l'Assam c'est Ansoumana qui est au ministère de la santé mais l'Assam n'est pas au ministère de la santé donc euh, ñun suñu suñu combat duñu ko bàyyi te jàpp nañ ne. mais lan moo ñuy firndeel que yow corrompre ñu la Ansoumana. waaw euh, buñ ma. corrompre parce que ni nga ubbee sa waxtaan mooy di xalamal euh, Abdoulaye Diouf Sarr. dëgg la kenn xameewu la noonu. non da nga daan attaqué. non Eva Marie Coll Seck. xam nga xam nga nee naa la. waaw nee naa la barki démb rek. waaw def nañ benn communiqué. waaw di interpeller. Abdoulaye Diouf Sarr sur la situation de sur la de des malades mentaux gis nga su fekkante ne dama noppi woon di wax ñu ne laa corrompre nañ ko mais man man ku ma xam xam ne euh, wax naa ko ministre Abdoulaye Diouf Sarr texto yi ma ko yónnee mhm. message yi ma ko yónnee laa bu ma la ko doon woon fii da nga naan déedéet parce que man euh, mënuma gëm ma nekk dans un système mhm. ba pare dëgg am te du ma ko wax déedéet kooku c'est kooku ce en pas Ansoumana Dione loolu euh, ministre Abdoulaye Diouf Sarr xam na ko bi nga xasee dugg ci système bi est-ce que nekkul ni nag danga nga génn ci xeex bi déggloo est-ce que piégé wuñ la dugal la ci système bi non euh, non waaw. Euh, parce que ñoom bi ñu ko jàppee piège mhm. ñoom ñooy piégé seen bopp parce que man ci biir système bi man je d'ailleurs je ne me considère même pas comme étant quelqu'un du système. Mm. man je me considère toujours comme président de l'Assemblée. d'ailleurs toujours dama koy wax euh, man man je reste le président de l'Assemblée moo tax ñenn ñi sax ba léegi président lañ may wooyee. Mm. man nga ne ma président moo ma gën a nga ne ma monsieur le conseiller. Mm. Euh, dafa fekk ne li nga war a xeex en interne boo ko amee kay. moom moo tax mais mais mais temps yii si ginnaaw Ansoumana da nga fi waxoon ne euh, conseiller giñ la fal tekki nga sa ndombal tànk démissionné nga parce que dañ la def conseiller pare joxuñ la euh, jumtukaay pour nga liggéey joxuñ la les conditions ne sont pare réunies loolu da nga si changé wala qu'est-ce qui s'est passé entre temps. xam nga loolu moo lay wan ne. waaw euh, loolu loolu moo lay wan ne. ñun. jog sànni xeer xam nga kii ñoom Abdoulaye Diouf Sarr sànni xeer ne euh, démissionné nga. parce que joxuñ leen les moyens. pour non seulement cest à sax moyens sax c'est pas moyens yi sax c'est pas important. mais lan moo waraloon loolu. xam nga li solo. Mhm. am solo mooy euh, nekkinu malades mentaux yi parce que wax naa ko Abdoulaye Diouf Sarr man mënuma nekk ministère de la santé euh, malades mentaux yi bañ am changement ci seen nekkin dama bind démissionné moom bi mu jotee lettre bi. Mhm. mu ne non doo démissionné doo dem. yow da nga ne munoo nekk ministère de la santé ba pare situation malades mentaux yi. amul benn changement loolu laa lay wax nii. Mhm. c'est-à-dire pour vous montrer que man je euh, cohérent euh, ci sama ay principe mhm. euh, bu ma gisee ne amul changement su ma gisee ni li ma bëggoon amul mhm. ma delloo leen li ñu ma joxoon la il m'a clairement dit Ansoumana na ma la bàyyi nga dem mhm. dañuy continuer travail bi dañuy continuer ànd gi léegi li nga bëgg lépp dinaa ci taxaw xëj na nag jot gi moo ko mayul xëj na temps bi moo méttee parce que il m'arrive parfois sunu audience bi mujj am euh, man ak moom c'était ay vingt deux heures si guddi parce que amul jot wax dëgg yàlla am na yéene euh, mi ngi daw guddi ak bëccëg mi ngi daw pour ministère bi mi ngi daw pour le parti mi ngi daw pour le président de la donc y' a y' a beaucoup de choses qui euh, que ba léegi nii li nga xam ne moom la ñu bëgg nekkagul waaye nag euh, ah, man lenn rek laay xool ci doomu adama bi mooy yéene gi su ma gisee ni yéene gi mi ngi fi temps bi nag parce que man ku toog ñaar fukki at di xaar. Mm-hmm. boo ñëwee ba benn année nga am un ministre boo xam ne mi ngi lay déglu di la ubbi buntam. ngay wax ak moom ngay teg say proposition barki démb la ñu envoyé benn lettre de benn lettre au président de la République mhm. pour que mu convoque une réunion parce que Macky Sall aussi am na ci responsabilité mhm. euh, la lettre baa ngi nii c'est une lettre boo xam ne dañ ko yónnee président de la pour mhm. que mu tenir une réunion d'urgence sur euh, l'errance des malades sur l'errance des malades mentaux ma ma jël ma jël document bi jox ko directeur de cabinet bu ministre Abdoulaye Diouf donc yombul mais. Mhm. Euh, du ñu bàyyi parce que xam nañ ne xam nañ ne obligatoirement surtout fan yii nii nga xam ne avec cette Covid 19. avec cette troisième vague. Mm -hmm. obligatoirement il va falloir qu'on prenne en charge ces malades mentaux ndaxte ñoom lay malades mentaux errants. Mhm. ku ne xam na ne c'est des porteurs sains. Mhm. maanaam ñoom euh, mën nañ jël Covid 19. te du ñu feebar aujourd'hui c'est les seuls citoyens. ñoo ñoo xam ne jëluñu vaccin ñu takk masque. ñu ngi ci ñu ngi ci salte tout le temps te kenn si ñoom amul Covid. Mhm. après après dinañ ci ñëw. mais mais mais Ansoumana. Mhm. est-ce que am na ñu ne Ansoumana ay oto la bëggoon dañ ko nommé conseiller peut-être bëgg na euh, oto salaire bu duun ainsi de suite loolu nga doon kaas ba teg sa ndombal tànk mais du pour situation wu malade mentaux yi. xam nga. Euh, loolu la wala du loolu. xam nga jox nañ la oto léegi. non non non ban c'est-à-dire que. Mhm. Euh, lépp loo gis rek dafa am ay moyen mhm. parce que man pour mu def suma liggéey réellement au ministère de la santé il me faut te ba tey amu fa bureau. ba tey amoo bureau. ba tey amoo bureau benn. waaw il me faut un véhicule. parce que un conseiller il a droit à véhicule amaguma véhicule mais le ministre Diouf Sarr a clairement di dana ci taxaw. Mm. te xam naa ne dina ci taxaw. beneen bi ma li ma gën a am solo laa li ma gën a am solo man ma am bureau ministère ma ñàkk am bureau ministère man direction générale action sociale ñoo ma man foofu laa nekk. Mm-hmm. bu ñu ma utiliser wulee mais action sociale moom moy perte. Mm-hmm. man li ma am expérience. ak li ma am ci euh, li ma yàlla may ci mbirum euh, ci mbirum. Euh, ci mbirum faible ak ci mbirum social de façon globale. Mhm. bu ñu ma utiliser wulee ñoom ñooy perte waaye man li ma amal solo mooy centre ba ca Kaolack pour les malades errants. Mhm, mhm. et le ministre s'est engagé à faire en sorte que ce centre là revienne donc donc à l'ASSAM pour que l'ASSAM puisse prendre en charge ces malades errants. centre bi dinañ si ñëw mais kon nangu nañ la jox oto. dinañ la jox oto. dinañ la wutal bureau kon looloo taxoon nga teg sa ndombal tànk xam nga mhm. nit ñi man damay gis ne ndey Comba nit ñi li ñuy wax Ansoumana mhm. man damay dugg naa fi site euh, des eaux mhm. taxi taxi bokk yi di dem tëngee ci dem ba yàgg di fay chauffeur bi ne ma non diw fayal na la ma ne ko ah bon mu ges ma ma yow état dala war jox oto ma ne. mais yow temps yi da leer en ce bi ma la mujjee gis melo woon nii. ah nii laa mës a mel nag euh, maa ngi sant yàlla euh, am soxna su baax. non temps yi da ngaa gën a leer ça se voit am soxna su baax mi ngi lay jox xaalis waaw Diouf Sarr mi ngi may toppatoo gaa. waaw ça se voit yaa ngi gën a leer. c'est vrai que c'est vrai que Abdoulaye Diouf Sarr. waaw moom suma mag la. waaw. Euh, euh, mais. Mm. am naa soxna su baax. Mm-hmm. moo lay toppatoo am naa soxna su baax. waaw euh, bu may toppatoo. waaw wax dëgg yàlla kii prend soin de moi. Mm-hmm. loolu dama koy sant yàlla. mais mais mu lay jox xaalis mais parce que temps yi da gën a leer. non bi nga nekkee conseiller. non non c'est-à-dire que. Mm-hmm. sama nekk ni conseiller. amul lenn lu mu yokk ci man. ah au contraire sax xanaa duñ la fay weer bu dee salaire. non ce que je dis xam nga nit ñi. nit ñi dañuy xool. waaw nit ñi gis nga man su ma nekkoon en France. Mhm. wala ma nekkoon aux États-Unis en 2006 déjà le gouverneur Saliou Sambou. Mhm. lors d'une réunion avec euh, au ministère de au la famille alors dirigé par euh, Farba Senghor. Mhm. en 2006 déjà euh, Saliou Sambou yàlla na ko yàlla dolli fa fa fan certainement mu ñu il disait à l'essence kii dañ ko war a toppatoo. Mhm. dañ ko war a mettre dans de bonnes conditions il doit être même logé parce que il est la solution à l'errance des manteaux pourquoi au Sénégal nit ñi. Mhm. bu ñuy ñiy def lu baax. nit ñi du ñu leen yéene ñu nekk dans de bonnes conditions man en ce nag wax naa ko Abdoulaye Diouf Sarr benn jour. boo mu joxulee oto. Mhm. sa oto bi lay sa oto bi ngay dawal nii. moom lay nangu moom moom lay jël. parce que yow booy xëy sa ministère oto ministère ngay ñëwee. man pourquoi man may may yow ministre en en tant que conseiller. Mm. may dugg ci kaar yi mu ne ma loolu wax nga dëgg te dinañ ci taxaw te man xam naa ne ba nii nii nii. ils sont dans les dispositions. mais mais ñu ngi lay fay salaire quand même nag. en mais chaque mois ñu lay fay. mais loolu maanaam loolu sa mérite la mais loolu. mais loolu kenn waxante wu ko. waaw def naa vingt ans te aw ma salaire. waaw léegi ñu ngi lay fay salaire. mais kenn salaire bi nag feeñ na si yow. mais mais. avant salaire mais mais mais c'est-à-dire. ah Diao avant salaire bi di ñëw. Mhm. avant salaire bi di ñëw. waaw euh, ci laa gënoon nekk dans de bonnes conditions que que que que même salaire. Ah, lu tax loolu. waaw parce que euh, man. Mhm. Euh, ni ma ko suma mag doon waxee madame Ngoné Ndoye ndeysaan mu ne ma Ansu da nga leb sutura sutura ngay am. Mhm. cest dire que munoo di defal nit ñi lu baax ba pare te doo am lu baax donc man li am solo si man. mooy que ne ba léegi nii wax naa ko ministre bi man ngeen di toppatoo man. Mhm. alors que malades mentaux yi lañ war a toppatoo. Mhm. bu leen foog ne fii laa koy waxee fii à la rajo euh, bu leen foog ne ni ne nee naa ministre bi boo ma doon jox un milliard par jour te defuloo malaat mentaux yi dara mooy defaloo ma dara. Mhm. boo ma defulee dara man. te ñu jël en charge ces malades mentaux mooy suma xol sedd na parce que mm. man sama richesse mm-hmm. sama trésor moo moo mooy ces malades mentaux la ñu nekk si mbedd mi parce que man nit moo ma intéressé man kër intéressé wu ma oto intéressé wu ma alal intéressé wu ma li ma intéressé depuis vingt ans su fekkee ne gëw ma ko woon bàyyi naa ko ce sont ces personnes là qui sont dans les rues benn malade mental bu nekk ci mbedd mi rek man pour man perte la bu budul jeex parce que l'errance des malades mentaux constitue le plus grand facteur de sous-développement mmh. dans un pays qui se émergent dans un pays boo xam ne ndaw ñi góor ñi jigéen ñi ñi ngi si mbedd mi alors que il devait être dans les champs jigéen ñi ñi ngi waxoon nekk ci seen biir sëy mm. xale yi ñi ngi waxoon nekk dans l'armée ñi ngi si mbedd mi tey ji loolu ça pose problème mm. donc tey ji dafay dafay jaadu lool loolu sax président Macky Sall moo ko war a moo ko war a gën a bëgg mm. le ministre Abdoulaye Diouf sax il m'a mm-hmm. en tant que ministre la man man maa gën a bëgg. Mm. les malades manto ñu jóge si mbedd mi. Mm-hmm. man en tant que ministre de santé en tant que quelqu'un boo xam xamante ni su ma sañoon ma jël ville de Dakar ci élection yi di ñëw. parce que mm-hmm. moom son intention. Ah, c'est de yaa ngi politique nag de. non non non. Ah, euh, non non non non non. waaw c'est-à-dire que Diouf Sarr nag piqué na la léegi nag yaa ngi politique munoo nee ma. Mm-hmm. tey jii pour euh, maanaam. Euh, Euh, dafay bokk ci ay yéenam moom. Mhm. Dakar avec cent malades mentaux errants. Mhm. parce que tey nee na bëggul nekk maire de Dakar. fekk dakaar mel ni mu mel nii xanaa xamu ne ndek ndey Kumba. Ah, mais moom mu ngi nekk ministre de la santé. il a tous les pouvoirs. loolu ah, euh, pour pour dindi fi. moom laa lay wax ni moo tax moo tax mu ne ma man damay lëkkaloo ak Assam. Mhm. damay lëkkaloo ak Ansoumana ak ak ak ak kuréelam pour que ñu jëlee fi ñi si mbedd mi ici a Dakar parce que Dakar c' est la Sénégal. touriste biy njëkk ñëw Dakar. Mm-hmm. kilifa guy njëkk ñëw Dakar li muy njëkk gis fii mooy ay dafi taxawal gis nga bi président américain di ñëw fii dañu xëy xëy rek policier di ramasse les manteaux errants yóbbu leen commissariat central mooy bi Obama di ñëw fii. Mm-hmm. parce que le président américain buy ñëw à Dakar pour sa sécurité on rafle tous les manteaux errants mm-hmm. mais pourquoi avec le président Macky Sall euh, pourquoi pour la sécurité des Sénégalais war ñu mun jël ces manteaux errants tey jii maa koy wax. Euh, xam naa sànq di si ñëwaat. Mhm. cest dire que euh, l'image de Dakar foo tourner gis ma mental erreur. partout foo tourner. Mhm. man sàmm sàmm. daf et puis dañuy gën a yokk. à chaque dama koy wax dama koy ministre tout le temps. Mhm. man sama wax munul neex waa. monsieur le ministre. sama wax mënul neex. parce que sama xol bi mooy saigner. tout le temps. parce que bu ma gisee benn malade mental buy erreur rek man c'est di c'est-à-dire mënuma ko digérer. Mhm. boo ci boole nag chaque jour ñu lay woo. ndik ndey kumba mhm. amul bés laa wax. Mhm. ba démb si guddi ñu may woo ci ay cas de malades mentaux. dafa am benn benn malade bu ñu ma envoyé euh, à quelque part. à Saint-Louis. Euh, dinaa la woon image bi léegi nii parce que euh, d'habitude yenn image yi du ma ko wone mooy seule image boo xam ni dama Euh, du yàgg mukk ba ma publier que. Mhm. parce que euh, mais biñ ma ko wonee xoolal kii. Mhm. kii ni ko yaayam juree. Mhm. sa moroom la. ci àll bi lañ ko foree te jigéen la. comme ça mi ngi nii. doy na war. Mm, ci àll bi mais ci àll bi la jóge nii. léegi femme bi ko téye kan la. xamu ko. daf ko gis nii rek ci mbedd dafa gis mbedd bi for ko. donc gis nga donc cas yii nii. Mhm. c'est des cas euh, yoo xam ne chaque jour ki jëfee. Mhm. dañ ma ci interpellé. Mhm. et wax naa ko ministre bi man chaque jour ñu woo ma alors que moyen yi mu war liggéeyee. newul sa sama loxo il va falloir que santé kola bi ñu delloo ma ko bu ko defee man fu ñu ma wooyee rek. ma jël malaat bi. yóbbu ak Kaolack avec des spécialistes ñu jël leen correctement en charge. léegi euh, tey jii boo ñu doon expliquer Ansoumana parce que maa ngi la koy wax sànq lan moo waral euh, malade mentaux yi sa su ne di gën a yokk ci mbedd mi parce que nombre bi dafay mel ni sax dañuy dañuy doubler wu chaque chaque mois wala chaque deux mois ainsi de suite lool lan moo koy expliquer exactement pour yow. parce que li may wax nii. Mhm. buñ ma corrompon du ma ko wax. Mhm. le Sénégal na soigne pas ses manto mentaux. le ministère de la santé est le pire ennemi de malades mentaux. la ministère de la sent là de l'action sociale mm -hmm. est le pire ennemi des malades mentaux c'est le seul ennemi des malades mentaux est-ce que li jàddu naa mhm. wax naa ko dayalam barki dem au téléphone maanaam ñam feebaru xel kenn du leen faj non c'est-à-dire ñu yokk saa su ne c'est-à-dire Sénégal moo toppatoo ay doom ñu am feebaru xel tey jii Covid bi ku am Covid 19 ñu jël la en charge ku am cancer ñu jël la en charge ku am tuberculose ñu jël la en charge mais boo amee feebaru xel dans la région de Diourbel Touba Diourbel amul fenn fu ñuy faje foofu feebaru xel nga dem Kaolack nga dem Saint-Louis ici à euh, boo ñëwee Tëngéej mhm. nga dem Pikine mhm. amul fu ñuy fajee feebaru xel euh, boo demee hôpital psychiatrique bu Thiaroye da ngay am sa xaalis ñu ne la fees na fees na pour ñu jël la fa malade c'est la croix et la bannière mhm. le Sénégal ne soigne pas ses malades mentaux le Sénégal ne s'occupe pas de ces malades mentaux te dans un pays tey te nag te na nag ay kilifa laa na ay kilifa yoo xam yu ànd ak feebaru xel yu tàqli ko ak seen xel feebaru xel ñëpp lay dal mm. góor mag ndaw jigéen xale ku ne lay dal mm. donc donc mais nag su fekkee ne euh, euh, Sénégal jëlul ay disposition am mm. nii rek la mën demee dofin ci mbedd mi te dofi ci mbedd mi ministère de la santé mënu leen faj ñun sunu kuréel gi kese asam kese moo ko mën te asam aussi mais loolu foo ko teg. mais c'est la de la santé munu munu leen a munu leen a faj jël en charge tey jii. ASAM moo leen mën a jël en charge. amal amal amal euh, wool ministre Abdoulaye Diouf Sarr wooteel secrétariat am wool DAGE wool chef de cabinet woowal son directeur de cabinet wool ku la neexoo ministère de la santé nga ne ko benn malade ngi nii amee feebaru xel buñ ma woowulee man dañu problème cest à buñ ko jëlee laaw yóbbu ko Thiaroye hôpital Thiaroye mhm. hôpital Thiaroye kese la ñu am nag à travers tout le pays muy Tambacounda maanaam ku am feebaru xel fu hôpital psychiatrique bu Thiaroye kese hôpital Fann fa c'est-à-dire c'est-à-dire ñi nekk ci bedd mi waaw boo jëlee le cas des malades errants mhm. hôpital Thiaroye leen hmm? mën a yóbbu lañ mën a yóbbu te foofu boo fa demee amoo fa place léegi nag kon léegi dafay jaadu léegi hôpital Fann ñan lay jël ñu am xaalis te Fann sax pour nga hospitaliser fa c'est beneen affaire la. maanaam ñi nga am seen wayju dañoo am moyen. non c'est c'est-à-dire euh, boo mënee fay. Mm. nga yóbbu nga yóbbu fa sa doom. Mm. da nga ñëw sax de am loo fayee de mais duñ ko téye dañ koy bind ordonnance bàyyi ko mu. bàyyi ko mu ñibbi. Euh, nga ñëw caaro yi caaro yi da ngay ñëw fay sa xaalis jënd ticket. ñu ne la place amul. place amul ñu consulter la bàyyi la nga ñibbi. est-ce que ñooñu tamit nekkuñu amul moyen. non état joxu leen ñëpp fa la ñuy jublu si. waaw loolu laa nombre de lii. manque de moyens. non manque de lii manque de moyens euh, maanaam mbirum feebaru xel dañ ko joxul gëdd au Sénégal dañ ko joxul cër bu ñu ko joxoon cër du demee nii mais nag loolu mi ngi commencé ci président de la République moo njëkk a doy dal. ñi mm. amee feebaru xel bu ñu ma ko. si naka très bien moom xam na ma man président Macky xam na ma bu baax a baax baax ku ma bëgg la man nag Macky Sall ku ma bëgg la. loolu léegi la de. déedéet ah, ah, déedéet ah, déedéet Soumaré yow léegi da ngay xalamal ay Macky Sall yi taxaw tuuti te daawoo xalamal Macky Sall yow Ndeye Comba man di suis noom homme conséquent mhm. man quand c'est rouge je dis c'est rouge quand c'est blanc je dis c'est blanc quand noir je dis noir mhm. dama ne Macky Sall laa wax ku bëgg Ansoumana la waaye mësuta bëgg convoqué Ansoumana en réunion mhm. au euh, président Macky Sall fan la teg lettre nii lettre bi mhm. waxoon na mu ne kat ne. xaaral 5 juillet bi 5 euh, juillet. Mhm. avant 5 juillet bi am na am na am na weesu woon. Mhm. yàgg naa ko bi lettre mais mosuma jël en audience bi Covid bi ñëwee ji booy laa reçu tout le monde des artistes des musiciens jël la ku nekk mais lan moo tax jëlul le président de l'Assemblée pour les manteaux donc le ministère de la santé le système le système sanitaire ci boppam. Euh, toppatoowul ñu am feebaru xel. Mhm. ministre bi am na intention am na yéene mais système bi ni mu tëddee. ni mu tëddee mhm. wax naa ko directeur de la lutte ko la maladie bakki dem au téléphone yéen yéen a liggéeyul yen a deful li leen war par rapport au la mental la division de la santé mentale bi docteur Tine jiite. Mhm. mais kooku docteur Tine boobu noonu ñun ñun dañ jàpp ne moo gën a feebar ñëpp maanaam kii yor mbirum santé mentale man Ansoumana Dione laa maa ngi fii rajo laay waxee man dof laa ko jàppee mm-hmm. division sentimentale kii ko dafa am feebaru xel fii laa koy waxee fii parce que ndax lan très bien parce que ñoom ñoom lépp loo xamante nii rek lépp loo xamante nii ñu amee feebaru xel dañ ko war a am uh-huh. ils font tout ba loolu du nekk mm-hmm. maanaam tey ñu amee feebaru xel bu nekk ci situation bi nii c'est à cause de la division de la ay mentale Aïda Sylla moo fa nekkoon professeur Aliou la moom moo fexe ba suñu sante colon bi nii ñu tëj ko. Mhm. tey jii docteur Tine ñëw gën a renforcer boobu lay euh, situation. parce que mhm. ñoom euh, maanaam euh, seen yéene. Mhm. mooy asam mu disparaître asam du liggéey te asam rek laa wax. moo mën a liggéeyal ñu amee feebaru xel parce que asam rek mu am un siège boo xam te ni ma nga ak Kaolack. un, un, un bâtiment flambant neuf mhm. construit sur un terrain appartenant à l'association donc tey jii bu ñu reconnaître l'Assemblée du titre public avec euh, toutes les dispositions ministère de la santé def benn rapport jox ko ministère de l'intérieur mhm. ministère de l'intérieur dafa document jox président de la République le, le président de la République dina signer un décret reconnaissant l'Assemblée du titre public su ko defee nag centre bi ñu jël ko teg ko ci loxo Assemblée Assemblée am tous les moyens qu'il faut bu ko defee ñu jël en charge. mais donc centre boobu yaatu na. mën na accueillir tous les malades mentaux tous du Sénégal tous les malades mentaux du Sénégal en cinq ans la wax en cinq ans Sénégal taqali ko définitivement. Mm. avec ce problème de l'hébergement mentaux euh, euh, centre boobu euh, teg ko ci ay langue Assam jox leen jumtukaay yi war pour yéen ngeen toppatoo ñu am feebaru lii moo wax a nekk parce que tey jii boo mm. jëlee Sénélec. Mm. mooy yor courant bu Sénégal. nga jël. Sen'Eau moo yor ndox mi. nga jël post nga euh, xam nga nga jël Sonatel jël tey ji asam. Mm-hmm. mooy kii war a toppatoo ñi amee feebaru xel nekk si mbedd mi di taxawaalu asam nag bu jëlee ñi si mbedd mi faan ak feneen ñoom ñuy jël ñi nga xam ni. Mm-hmm. ñoom ñoo peut-être am na yenn pour faju ainsi de justement mm-hmm. mais ceux qui sont dans les rues li nga wax sànq la seen lim day gën a yokk rek di dem. parce que parce que kenn jëlewu ci mbedd mi dañuy yokk rek gis nga dinañ dem ba à la man dama naan sax euh, dof yi. Mhm. Sénégal daanaka Macky Sall def na nang. Mhm. Macky Sall def na nang ay dof rek la nar a jiite. <laughs> parce que mais mais gis nañu assemblée nationale. Mhm. ay député yu xeex. mais de député gis nañu ñooy dañu wér kon nag wéruñu <laughs> les sénégalais sont sont devenus violents. saagante yi rayante bi mais chaque jour que Dieu fait euh, tey jii on parle de euh, Covid 19 bi tey ni mu yokkoo nii. sénégalais seen bopp ñoom ñoo ko waral parce que ñoom ñoo civilisé wul xoolal da ngay xëy le matin nday kumba mhm. tali soo ciy dox mhm. tali bi dañ koy tufle mhm. le matin mais loolu ci ban réew la am loolu réew moo xam ne nit ñi dañuy dëkk di tufli ci mbedd bi guddeeg bëccëg suba ak ngoon mais loolu c'est pas du civisme loolu loolu bokkul ak nitee donc loolu euh, santé dafay fex ba nit ki xelam maanaam nit ki mu nitee nit du bàyyi ma mm-hmm. Mm-hmm. nit nit la te nit mooy ki mën a jëfandikoo xelam mm-hmm. nga euh, nga bëgg sa réew bëgg sa bopp bëgg sa prochain bëgg suma prochain man Ansoumana jot moo tax may xel ñamay feebaru xel parfois les gens disaient au au début donc on pensait que ne man Ansoumana donc wéruma parce que su su Ansoumana may lan lay xeexalee waaw kay parce que su ma wéroon danaa dem def fi ji leneen lu dul di dimbale ñaami benn bi taxawaalu parce que ku nekk na jàpp sa bopp comme ki des si mbedd mi Macky Sall na jàpp ne dof fi góor yëpp ay Macky Sall lañu Marième Faye Sall na jàpp ne dof fi jigéen yëpp ay Marième Faye Sall parce que ñoom Macky Sall sénégalais yi fal. Mhm. Abdoulaye la Sarr est le ministre de la santé Macky Sall moo ko nommé donc il appartient au président Macky Sall de lui donner des instructions pour que ñu am feebar xel ñu toppatoo parce que ñun dañu jàpp ne réew mi tey jii ni muy doxee suñu ministres yi. Mhm. kenn si ñoom laa wax euh, ñemewuta jël initiative boppam Euh, il faut que Macky Sall la il faut que Macky jox la mission il faut que Macky jox la instruction pour nga taxaw ci benn mbir moo tax lettre bi nii. jox ko président Macky pour que mu oote une réunion sur les renseignements mentaux. c' est problématique c' mm-hmm. problématique boo xam ne. Mm-hmm. Mm-hmm. buñ ci jógulee man jàpp naa ne musiba bu rëy dana dal réew mi parce que réew mi actuellement ñi amee feebaru xel ñoo ëpp. mais est-ce que nekkoon tamit affaire yamba bi xale yi jeunes yi di jëfandikoo moo waral ñu am feebaru xel di gën a yokk ci mbedd mi. yamba bi nag ma lay laaj ci causes yi loolu taxoon ma lay laaj lan moo ko waral les causes. gis nga causes yi. yamba bi mu mu gën a néew nag. ah bon waaw tey jii. tuxum yamba moo gën a. gën a néew tey si ñu dofoo tey jii. loolu c'était dans les années quatre-vingt. Mhm. dans les années quatre-vingt euh, mën nga ne yamba day dofloo mais tey jii. Mhm. divorce bi day dofloo. te divorce yu bari divorce yu bari yi chômage bi day def loo gis nga fii ak 2024. Mhm. di nga gis sax ay kilifa yi ci langue politique bi. Mhm. ñu am feebaru xel parce que déception dafay def loo. Mhm. déjà am na sax ñoo xam ne actuellement nii nii nii ni ñuy agiré da lay na ñii dof nañ bu yàgg. parce que bëgg jiite réew. dafay dofloo Euh, euh, ji ji comme ni ñuy wax le pouvoir rend fou. Mm. mais la recherche du pouvoir également rend fou. Mm. c'est c'est-à-dire que euh, boo jee tey àdduna bi tey jii nu mu nu mu taxee tey jii. Mm-hmm. jafe-jafe àdduna yi. Mm-hmm. jigéen ñi da nga jigéen ju ëmb. Mm-hmm. di xalaat ay. boobu boo weeree yebbi. Mhm. di xalaat ñi nga war a teral. ñi nga war a teral. Euh, sa taratoo sax sa santé. taratoo sa sante waaye lu may teralee. yow yaa ngi yow yaa ngi ëmb. war a gan. Mhm. yow ñu war teral. Mhm. ñuy xaar nga teralaate yow. te fekk liggéeyoo defoo dara liggéeyoo defoo dara léegi nag sa sa sa sa jëkkër joxu la ko sa goro ngi taxaw sa jëkkër ngi taxaw gis nga moo tax jigéen ñi bay tey jii ñi ngi am feebaru xel boo demee mm-hmm. boo demee dans les mm-hmm. ay jigéen ñi ndaw nga fa fekk yor seen ay liir di nampal am nañ feebaru xel parce que mm-hmm. pression bi leen société bi teg dafay da dafa jéggi day donc loolu loolu yëpp tey jii bokk na si liy favoriser mbirum feebaru xel ba ci covid 19 bi Euh, man bi ñuy bi Covid bi tàmbali laa ne Covid bi dina laal santé mentale. Mhm. bi bi ma koy wax kenn kenn waxu ko mais tey les les plus grands spécialistes du monde on démontré que la Covid affecte la santé mentale. Mhm. nee sax boo jëlee euh, téeméer boo jël. Mhm. am na ci benn lim boo xam te ni daañu am feebar xel. ci ci ci naka parce que euh, xëj na xëj na daf xëj. du fi mm. xaj mm. xëj na euh, xam nga anxiété maanaam wala psychose bi muy teg mm. xalaat moom la moom lay wax ni moom lay wax ni xam nga euh, moo tax man euh, dama koy wax tout le temps ñi ñi ma xam ak sama njaboot maanaam bu ñu dund stress man li ma gën a bañ ci àdduna mooy stress lekkal ba suur tëddal nga nelaw mm-hmm. bul jaaxle bul tiit mm-hmm. nit il faut rester toujours égal à soi-même, quelle que soit la difficulté. Mmh. Parce que les problèmes sont faits pour être surmontés. Mhm. La COVID-19 est juste une maladie, mais c'est pas une malédiction. bu fekkee ne am na COVID-19 rek mu xalaat ne day dee wala non non non feebar la comme soj comme tuberculose comme feebar yëpp. Mhm. dee moom ak feebar bokkul. Mhm. léegi nag. Euh, yooyu yëpp dafay euh, dafay travail ci xelu ba ci xelu nit ki. Mhm. léegi nag am na ci yenn yoo xam ni nag euh, bokkul sax ci loolu. Mhm. mais ci feebar bi ni muy ni muy développé la. Mhm. feebar bi euh, parce que Covid conséquence bari lay bàyyi. dina bàyyi ci xel dina bàyyi sax ci guu. am na yu baree bari yoo xam ne mi ngi ko indaal waaye ñun bi ñu gën a amal solo mooy ci mbirum feebar bu xel kon nag lii tey jii dafay tax. mbirum feebu xel bu ñu jox ko gën ko bu ñu gën ko fullaal même euh, dans les pays développés en France en Angleterre euh, l'OMS a recommandé ñu jël santé mentale daf ko priorité gis nga même confinement bi. Mhm. confinement bi en France mais do dof la mhm. ñu bëri. dof la ñu bëri. xam nga donc. tëj euh, ay nit mënuñ génn tëj génn fii nii ay liggéeyukaay yow tëj. Euh, ay nit ñu waroon xëy xëyuñu yooyu yëpp ça pose problème donc mhm. dafay jaadu. mbirum feebaru xel ñu fullaal ko ñu jox ko gëdd malheureusement nag. le ministère de la santé je le répète toppatawul mbirum feebaru xel. Mm-hmm. Euh, waaye nag euh, am naa ci espoir am naa ci espoir ndaxte l'homme Abdoulaye Diouf Sarr la personne de Abdoulaye Diouf Sarr euh, tey am na léeg-léeg ñenn ñi ci say ci say conseil dañu ma mais en ce moment je je comprends pas. Mm-hmm. Abdoulaye Diouf Sarr bu teyee nga xas ko. bu subaa nga bu subaa bu subaa nga nga nga duma ko. malan noonu lay liggéeyee parce que bu fekkee ne mbirum feebaru xel la moom foofu om lu may négocier. Mm-hmm. de vie de même buñ jàkkaarloo nii moom day gis ne kii waxam munul neex. parce que mais gis nañ tamit bi bi bi jaxate Diakhaté génnoon du attaqué gestion wu Diouf Sarr si Covid 19 bi def nga communiqué tamit di di attaqué. Moustapha Diakhaté bien bien avant Moustapha Diakhaté suma sœur euh, suma sœur Aïda Mbodj. Mm-hmm. suma sœur Aïda Mbodj moo njëkk a Euh, Abdoulaye Diouf Sarr ci gestion Covid bi Moustapha Diakhaté ñëw ak ñeneen ñeneen ñeneen mais te tey cest à nit ki dangay ngay xam da dangay euh, nangu. Mhm. Euh, li mu mën man su ma gisee Abdoulaye Diouf di du lundi au dimanche. Ndeye mhm. Comba. Mhm. de sept heures à presque deux heures du matin dama la kii est nit la quoi. moom dama koy xool te mu koy yërëm. mi ngi taxaw subaak ngoon guddeeg bëccëg. di samedi laa wax au dimanche laa wax. Mhm. amul amul vie de famille. Mhm. il se sacrifie contre la Covid. ba ñu ne ba ñu ne Sénégal moo jël deuxième au niveau mondial. Mhm. premier au plan africain waaw loolu. loolu dañ ko war a sagal moo tax keroog bi ñu koy jox gaynde door fële grand théâtre maa njëkk xalaat man sargal Abdoulaye Diouf Sarr boobu dëkk Covid bi mi ngi doog a tàmbali maa njëkk xalaat pour sargal ko moo tax bi ñu ne gaynde d'or euh, douzième gaynde daf koy sagal daf koy sagal au grand théâtre mais dama ñëw ànd ak moom te loolu nag àdduna bi ñëpp koy rafetlu euh, gestion yu covid 19 ak mm. Abdoulaye Diouf Sarr ma ne loolu moom il n'y a pas photo Sénégal ñëpp ko rafetlu donc c'est mm. quelqu'un à encourager c'est quelqu'un à accompagner gis nga ensemble nous vaincrons mm-hmm. sama benn communiqué la man mii mm-hmm. man maa ko bind ensemble Euh, nous vaincrons man maanaam woon nañu mobiliser wu derrière Abdoulaye Diouf Sarr même le président Macky Sall derrière Abdoulaye Diouf mhm. parce que Covid bi moom la yàlla dogal bu nekk un ministre a la santé gis nga am na ministre am na réew am xam te nii. Mhm. bi Covid bi ñëwee rek ministre yi dañoo démissionné bàyyi. Mhm. mais moom Covid bi ñëw mu taxaw te ba fii may wax nii ba nii nii nii amatul jot laa wax Abdoulaye Diouf Sarr samedi dimanche mi ngi sur le terrain mi ngi xalaatal président la République mi ngi jël ay xalaatu ak président de la République ñoom ñooy ànd ci Covid bi di doog doog di ko liggéey il a toujours dit moom euh, taxawaayam euh, Macky Sall moo koy gën a dooleel. donc lii yëpp nag bu ñu ko amee ci Covid bi ba ba ba ñu dem ba foog ne sax Covid bi jeex na kon bu yàlla defaatee Covid bi ñëwaat ni te nag li ko indi nii. Mm-hmm. nañ ko xoolaat baax a baax baax baax baax. Ah, il y a trop de variants. Mm-hmm. Covid bi dafa soppaliku. Mm-hmm. su ma soxna mi ma euh, ma naan ma day yàmb doon wax naan Covid bi. benn moment. Mhm. dafay dafay multiplier wu par n. Mhm. Mhm. mun ma yor fi ni li nga doon wax moo nekk. Ah, soppaliku nekk donc si loolu lañu nekk jamono jii nii. moo tax euh, am na ñeen ñuy bëgg a wax naan way euh, rassemblement yi la. Euh, en en tout cas war nañ ko mën a xoolaat lan moo waral Covid bi xëy xëy rek gën a yokk nii. mais espoir mën na am yaakaar am na parce que tey la nga Abdoulaye Diouf sax gën taxaw gis gis nañ ko ba bakki démb à la mu ànd ak tous ses directeurs. ñëw taxaw changer système de communication wax ne léegi euh, régulièrement dina ñëw à la di wax ak nit ñi te nag man bu ma sañoon sax mu gën ko yaatal. Mm-hmm. au au delà même de la RTS ñuy def ay ay ay rencontre bi avec toute la presse nag la. avec toute mm-hmm. avec toute la presse. avec tout la presse Rewmi FM euh, Sud FM RFM. Euh, Sen TV 2STV ñëpp. Mm-hmm. mu ñu ñëw bu ko defee mu boobu mu gën a parce que nit ñi. ñii dañuy seetaan RTS ñii seetaan TFM ñii seetaan. Mm-hmm. donc Walf Fadjri message bi gën a jàll. message bi gën a jàll. Mm. waaye intention bi yéene bi mi ngi fi ba Covid bi jugaatee rek la ñëw gi gis nga avant Covid bi yokk nii. Mm-hmm. dafa amoon benn meeting boo xam ne moom da ko doon préparé pour euh, pour pour pour son investiture. Euh, donc, donc à la mairie de de de, de Yoff et ce sont les femmes conseillères municipales bu Yoff ñoo ko organisé mais xoolal dañu def lépp ba mu des quelques jours mu ne leen arrêté leen. Mm-hmm. ñu ñu ne la lan la mu ne Covid bii jeexagul. Mm-hmm. nañu areté mitin bii yàlla def euh, fan yooyu quelque une semaine après ci la Covid bi commencé yokk donc ce qui veut dire moom am na yéen a ko rafet en tant que ministre de la santé jël na responsabilité malgré que ne génn nañ ay moyens pour def un meeting mu arrêté meeting bi. mais eh, actuellement ñaata malades mentaux errants moo fi nekk fii si Sénégal. Euh, xam nga maa ngi lire euh, en France euh, keroog ñi naan 5000 malades mentaux na ñoo nekk en France dans les années 2000 2000 kii en 2020. Mmh. au Sénégal ils sont plus de 3000 actuellement. 3000 3000 mmh. et quelques ñoo nekk au di errer te nag amul kenn koo xam te ni Sénégal. taxaw ne leen. Mm-hmm. ñoom ñu ngi si mbedd mi ñu ngi dee ci mbedd mi. Mm-hmm. Euh, am na ku ci dee keroog euh, donc walal de. Mm-hmm. walal de euh, ci àll bi la dans les champs. foofu lettre bi mu bi lettre bi mu bind Abdoulaye Diouf Sarr en tant que conseiller. en tan que président de l'Assemblée ñëpp gis nañ ko parce que bi naa ci lettre bi nekk yow Abdoulaye Diouf Sarr bi nga ñëwee ministère de la santé ba tey jii defuloo dara ñu amee feebaru xel. loolu c'était le cœur qui parlait et c'est l'ASAM qui qui était là et c'était une façon de lui dire hey Abdoulaye Diouf Sarr taxawal te ñuy régler cette question la mm-hmm. euh, def naa ci euh, lettre bi bi mu ko publier le samedi mm-hmm. le dimanche la ñu ànd grand théâtre ànd dem euh, inauguré fële Malicounda ñaari ñaari poste de santé ci guddi gi la ñu gisee dans un hôtel de la place vers vingt deux heures mm-hmm. maag moom ñu wax sur la question de malades mentaux c' est pour démontrer que ne moom sama soxla soxlaam la mm-hmm. sama bëgg-bëgg bëgg-bëggam la sama naqar naqaram la mais nag dafa war a jóge acte à la parole euh, mm-hmm. si jóge si parole bi dem si acte loolu loolu nee naa ko balaa seen mandat di ba fii <laughs> ba fii may wax nii moom lay xaar te am naa yaakaar am naa yaakaar ne mo mi ngi may sax déglu certainement mi ngi may déglu parce que bi may ñëw fii yónnee naa ko message dina wax maa ngi dem Rewmi FM. Mhm. certainement mi ngi may déglu donc monsieur le ministre de la santé et de l'action sociale monsieur Abdoulaye Diouf Sarr maa ngi lay woo fii à travers les zones de la rajo Rewmi FM pour que ñu taxaw ñu amee feebaru xel. parce que munoo nekk fii parce que man man du ma nangu laa wax. Mhm. non du ma baal Abdoulaye Diouf Sarr du ma ko ko baal laa wax en tant que frère. Mhm. du ma ko ko baal mu nekk fi ba jóge fi. te topp tool mbirum feebaru xel dama mm. bëgg ñi amee xel mu bokk ci bilan mm. te moom xam na loolu parce que gis nga boo jëlee boo demee maire bu Yoff mm-hmm. maire bi yoof c'est l'une des rares municipalités yoo xam ni mm-hmm. euh, dañuy jël ay ordonnance dañuy jël ay analyse mm-hmm. dañuy jël ay rajo dañuy jël ay scan yoo xam ni maire bi ñoo koy fayal seen ay population mm. donc moom wàllu social da ko soxal léegi nag bu yàlla dogalee tey mu nekk ministre de santé mu am une association qui s'appelle ASSAMM boo xam ne mën na lëkkaloo ak moom pour toppatoo ñu am feebaru xel jàpp naa ne daf ci war a gaawant am na yéene bë bë bëgg na ko waaye nag li nekk ci bopp bi bari na comme ni mu koy sànq. Mhm. mi ngi doxal euh, ministère bi euh, mi ngi mu ngi ci parti bi. Mhm. mi ngi doxal euh, mi ngi ci tànk président dëggal mi ngi ci ay mission président wax dëgg yàlla nag li yëpp ku ko gàddu dafay xaw a waaye nag. Marthe Mantoy ci la bokk moom laa koy tout le temps. Hmm, ci la ñu bokk dañ leen jox seen wàll. léegi naka nga gisee centre delloo si bi nekk Rufisque euh, benn jeune Ahmed Daf am initiative euh, jël am ñu feebaru xel yóbbu leen si benn kër foofu di leen toppatoo yow nga lool. Euh, ñooñu yoon dafa leen war a jàpp. ndax la wax naa ko docteur Guèye. centre delloo si yow. delloo si boobu. Hmm. c' illégal loolu séquestration la séquestration la amuñu ci droit. ñun dañu war a saisir sax. Mhm. la brigade de recherche bu Colobane d'une plainte. waaye balaa booba. Mhm. wax naa ko docteur Guèye mooy mooy le directeur de la contrat parce que ñooñu. Mhm. docteur Tine bi may wax nii moo leen di dooleel. parce que euh, gis nga mbirum feebaru xel man depuis combien d'années maa ngi fi mënoon naa jël n'importe quel villa di déglu ay nit fi mu nekk man tënk laa dëkk kooku nga wax nii bi muy tàmbali daaw la ma woo daaw la ma woo. di ma wax naan way man seen tur yi xaw ma ga Euh, dañ bëgg jël ay maat manto may la ñu lekk bëgg na fekk ma ne ko waaw maat moom ku ko mën a may lekk na ko may na mu lekk. Mm-hmm. mais seen soxla du may lekk seen soxla mooy faj leen ba ñu wér. Mm-hmm. ah pourtant ñooñu ñu ngi leen yóbbu centre bi di leen sang bañ set. moom leen ay yëre di leen jox lekk. am na si ñoo xam dafa leen jaaree wér. ba moom laa lay wax ni loolu c'est illégal tout le temps ils disent que préfet bu Tëngéej. moo njox autorisation préfet ba la ko jox préfet boobu c'est un malade mental fii laay waxee fii c'est un préfet mais a xeex loolu ensuite tamit yow lu si nekk c'est la loi soixante quinze quatre vingt moo ne ku amee feebaru xel bu ñu ko jël au début c'était dans des écoles jël leen du dugal ci ay écoles sous prétexte Covid 19 non c'est-à-dire c'est pour vous même y ambulance y a boo xam ni benn ambulance te jël bind ci xaw ma naan pour malade mental won naa ko directeur de cabinet bu ministre Abdou Diouf Sarr cest à euh, yaay yaay tout de laisser-aller autour des départementaux gis nga kilifa ci kër. Mm-hmm. bu taxawulee taxawaay bi ko ci këram réew mi rajo FM ba réew mi FM bii. Mm-hmm. bâtiment bii. Mm-hmm. bu fekkee ne ku ñëw dugg sànq bi bi ma dugg see dama ñëwaat jënd eh. ma taxaw. nuyu ko. ñu waxante ma ne nekk ba mu moom ma invité. ñu ñu parce que dafa am organisation ministère de la santé bu amulee organisation ci problèmes mentaux yi mais golo gu jóg laa wax bëgg def lu ko neex. Mhm. loolu c'est pas un centre c'est archi faux delloo si boobu ñu wax noonu. Mhm. ce sont nos propos c'est nous qui disons le centre accueil soins et réinsertion. Mhm. accueil doo accueil euh, dalal soins delloo sil réinsertion dooleel. delloo sil n'existe pas Rufisque c'est un centre boo xam te ni. le ministre de la Santé et de l'Action sociale mm. monsieur Abdoulaye Diouf Sarr doit des instructions pour que malade mentaux yi fi nekk ñu arrêté leen delloo leen euh, soit ñu jox leen seen ay mbokk wala ñu bàyyi leen ñu dem en toute liberté parce que la loi interdit ñu séquestrer est-ce que tamit nekkul ni euh, euh, kii <coughs> en Ansu centre delloo si dafa nekk di di di voler la vedette non dégguloo may ma non dégguloo li ma la wax mm-hmm. ñoom ñaata boo demee à Rufisque. Mhm. mais y a plus de malpenteux errants. Mhm. ñoom ñaata pension la am ne ay vingtaine la SAM s'occupe de plus la SAM s'occupe de trois mille malades mentaux. la SAM a un siège à Kaolack siège bi kenn moo tabax état bu Sénégal moo tabax si la SAM avait son siège à Kaolack. Mhm. kenn laa wax du woon am jotu. naan dañuy gis ay map mental parce que doo doon na fekk. assemblée ñëpp la ñuy jël leen ñun loolu moo lay wan ministère de la santé. la division de la santé mentale maanaam ay criminel ñoo fa nekk ay dof ñoo fa nekk ñi nekk division santé mentale laa wax. docteur Guèye moo nekk DLM. ñi nekk division santé mentale da d'ailleurs dama la koy wax de bouche à oreille. vous êtes des malades mentaux c'est la division des malades mentaux c'est pas la division de la santé mentale mais c'est la division des fous. c'est la division des malades mentaux fii laay waxee ci rajo la et et et j'assume mes propos tey jii ñoom ñooy dooleel ñooñu waaw mais lan mooy. est-ce que mos ngeen dégg ñu ne nañu fexe ba Assam jot sa centre aloo alors que si l'Assam avait son centre. Mm-hmm. da kay day ànd ak ministère la santé. Mm-hmm. def liggéey bi mais tey ñoom ñoo ñu nekk à Rufisque. Mm-hmm. centre delloo laaj leen ndax am na médecin déedéet. docteur bu euh, docteur euh, Siaka Koulibaly. biñ ko ndëkk tàmbali c' est Siaka Koulibaly psychiatre qui m' appelle. mu ne ma Ansou y' a des gens qui sont à nga dañuy toppatoo ay manteau ils m'ont demandé ma ñu jàppale leen. Mhm. quand je leur ai posé la question est-ce que Ansoumana est dedans ñu ne ma non ma leen Ansoumana lu mu bokkul duma ci bokk et c'est un psychiatre parce que Siaka Coulibaly xam na ma. Mhm. man je suis un légaliste. Mhm. man mun man su ma neexoon ubbi fii n'importe quel bâtiment Rufisque jël les manteaux du du du leen fa mais loolu c'est illégal. c'est illégal la loi l'interdit. yaa sa saa ñooñu xamuñu xamuñu lu ñu def lan la yoon daf ne la loi soixante-quinze quatre-vingt dama ne am na ci ay emprisonnement am na ci ay amende cinq cent mille à deux millions ci boo jëlee benn malade mental nga yóbbu ko quelque part parce que xam la lañu bañ mhm. nga xool euh, benn nit rek nga ne daf feebar nga jël ko yóbbu ko foofu parce que toute personne kii dans la rue n'est pas forcément un malade mental donc nga jël nit rek parce que dafa salté wala dafa sox ay yiritim rek nga jël ko yóbbaal ko centre boobu noonu c'est c'est restreindre ses à l'hôpital psychiatrique de Thiaroye yi on di à l'hôpital même su malade bi même su wérulee sax am na diggoo xam ne amoo daal di ko fa téye ana sant mm-hmm. sëñ Modou Kara yi mm-hmm. li li tëj sant sëñ Modou Kara moo wax a tëj moo wax a tëj sant boobu noonu temps bi jeex na Ansu foog ñu bàyyi la nga tàggatoo. ah ndey kumba ndey kumba émission bi neex na. neex na trop. <laughs> émission bi neex na euh, may may am contenté. Mhm. di am mbégte. Mhm. Euh, ñëw vraiment euh, ci toute la ville en parle. Mhm. c'est plaisir à chaque fois ñëw. jàkkaarloo ak yow. wax dëgg yàlla di ñaanal di ñaanal donc Rewmi FM. di ñaanal kilifa gi Mbañu Diop maa ngi rappelé suñu dernière émission mhm. euh, fii euh, fekk may wax mbirum communiqué ci la ma may benn ordinateur ordinateur boobu ba léegi maa ngi ko téye te ba léegi maa ngi siy travaillé mhm. donte ne ministère de la relation sociale la direction générale de relation sociale jox na ma benn ordinateur portable mais mhm. ordinateur boobu noonu moom laay liggéey ba ba fi may waxee nii donc euh, di leen gërëm di leen sant di woo nag Abdoulaye Diouf Sarr di woo Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé pour que mu taxaw si ñu am feebaru xel. Hmm. mu taxaw ci laa mu taxaw ci mu toppatoo ko ñu ànd liggéey pour que Sénégal jëm kanam parce que dof fi ci mbedd mi ay Sénégal lañu. jox la sa centre bu Kaolack jox ma suma loolu moo la jox ma suma centre Kaolack. parce que centre Kaolack bi man wax naa ko amul benn Sénégal la en commençant par Macky Sall amul benn kilifa bu taxaw ci réew mi. te doo xam ne santé bi asam moo moom même le ministre Abdoulaye Diouf bi muy doog a ñëw en 2017 il a clairement dit santé bi asam moo moom la directrice générale de l' sociale signé na document. Mhm. jox ko Abdoulaye Diouf jël santé bi delloo ko asam delloo ko Ansoumana bu ko defee ñoom ñu a def liggéey parce que association bi moo mën a liggéey liggéey bi xam ni moo jëm fi ñu euh, xel. jërëjëf Ansoumana koy remercier bu baax nekk président bu action sociale ñu koy remercier bu baax a baax ci disponibilité am ah, di leen remercier yéen suñu auditeur di remercier Mamadou Diaw Diallo bi nekkoon ci cabin technique bi émission bi ba samedi prochain incha allah ci beneen émission ah, beneen thème ak ah, beneen invité ngeen mën a rattrapé wu dégluwaat ko ci suñu chaîne YouTube Rewmi officiel wala ci suñu site internet www.rewmi.com jaa ngeen jëf.